différentes émission waaye émission bi nga xamante ni mu ngi tudd làmb 2 point 0 dellusiwaat na ñu ci ànd ak saa su ne suñu papa ji di père Birahim di suñu consultant ñuy faral di waxtaanee lépp li nga xamante ni dafa soxal làmb ji am na làmb yi nga xamante ni moom moo fi amoon moo fi am weekend yi passé ak làmb yi nga xamante ni euh, mooy ñëw yooyu yëpp dinañ ko daal di waxtaanee waaye laata loolu dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet ñu sans limite TV ñu ñëw ci waxtaan bi père maa ngi lay nuyu la ziar. jërëjëf asalaamaaleykum bisimilah rahmaani rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi nuyu mbokk internet yi nga xam ni ñu ngi safoo suñu site bi cent point deux mm-hmm. lamb cent point deux mm-hmm. yëpp di nuyu ñëpp mm-hmm. di leen ñaanal jàmm di ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm yéen ñëpp nag waaw képp ku ñu déglu rek maa ngi lay ñaanal jàmm di ko ñaanal waa Sénégal ak réew jullit yëpp daal ma kenn maa ngi nuyu ñëpp di baal wax di baal ñëpp macha allah macha allah euh, équipe nationale bu Sénégal war a dem Coupe d'Afrique ba euh, tey sax ni euh, président Macky Sall doon leen jox li nga xamante ni moom mooy drapeau bi lan nga leen di ñaax si sinon lan nga leen di wax. waaw li ma leen di ñaax rek di ñaan ci yàlla yàlla jox leen ndam. Mhm. ndam loo am bii ñu passé. Mhm. Coupe d'Afrique bi nga xam ne daw nañ ko ay ati ati at yoo xam ne yéen xale yi boobu sax ñu duw leen. Mhm. ñu dem ba am ko jot yàlla def ñu am ko ci ñoom Sadio Mané ak ñi mu àndal ci loxo Aliou Cissé di ko félicité di ko ñaanal yàlla ñaanal na ko yàlla def mu tegale ko trois fois. Mm. loolu la ñaan la koy ñaanal et di ñaanal président Macky Sall mi nga xam ne bi tamit xam naa tey euh, mooy seen mujj. Mm. mooy mujj tàggoom ci équipe nationale. Mm. parce que comme bon keneen dañ war a am fal beneen président. xam naa dañ leen ñaax ne leen nag euh, sama tàggoog yéen na ngeen mën di kubbi. parce que tàggoog moom. li ñu mën a sargale moom Macky Sall tey jii. Ah. war naa ñaax boole tey nag maa ngi leen tàggu di leen ñaanal nag ni ma leen jige woon yàlla defal ba rek ku bi ñëw ci ci sama ay. damay ñaan yàlla sama tàggatoo fe fegal bii tamit. Mm-hmm. ay gi ñëw ci man ngeen indiwaat ma ko fii ma door a tàggoog yéen. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal. amiin te bu ko defalee Sénégal yëpp la ko defal. Sénégal yëpp la ko defal ñu ah. yàlla ñu dem ci jàmm ñëw ci ànd ak ndam lu yaatu nag. Mm-hmm. waaw yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal. yàlla ñu ko yàlla defal waaye kenn si ñoom nag eh, da doon takk soxna nag ñu bëri naan Sadio Mané kañ ngay takk Sadio Mané waaw àddina lu jot yomb. Sadio Mané xam nga man euh, mosuma jàkkaarloo moom lu dul tere nii. Hmm. rek laa koy gis nii dégg hmm. ko mais dama dégg ci moom jikko yu baax yoo xam ne yi ndaw lu nekk war ngaa roy ci moom. parce hmm. ci ni ma dégg ci ni ma ko déggee. parce que yàlla defal ko ci football am ci taraangam ba mu defar seen dëkk. taxal leen hôpital tabaxal leen école tabaxal leen lépp lu xam ne école dëkk ba soxla na ko. defaral leen ko ah ba toogit takk soxna ci ay mbokkam waaw gone day kilifa. Euh, gis nga sama yaay. waaw am ma sa wax ne ma ndaw buy samp kër day samp ko mm-hmm. waaye wax na dëgg booy samp ko ne. Mm-hmm. na nga xool fi ngay jëlee ak ñi ngay jël ñan la. Mm-hmm. waaye fu la neex jële fu ma neex takk. ah jur la doo jur la la jur doo la neex mukk. waaw kon waaye nag gone. su fekkee ne dafa tànn ay bokkam tànnal ko ne kër demal kër diw. diw soo fa demee am nga soxna. ñu takkal la fa andil la. Ah, boo demee doom ju baax rek ngay am. Mm-hmm. waaw parce que dañ laa tànnal mm-hmm. waajur yi ñoo tànnal moo tax li mu def nii takk si ay mbokkam doon milliardaire bokk ci ñi gën a am tur ci monde bi mm-hmm. ci football ba pare dem ci bokkam takk loolu man de dama ko ci félicité ko ñaanal yàlla na ko ci yàlla jox njabootu lislaam njaboot gu barkeel. Hmm. waaw waaw. Hmm. te ñuy dégg sax ci ay témoignages keroog maa ngi fi woon bi may waxtaan ak papam hmm. xale bi di Aïcha di soxna Sadio Mané. papa ji mi ngi wax ni euh, doom ji wàcc na kaamil. kon mu ah. mel ni saajo maane euh, maanaam yàqul xaalisam daal ni ñu koy waxee. waaw mooy diine bi rek xam nga boo si am diine. Ah, mokkal kaamil. dagg kaamil firi koog jëfe jëfe moo gën a am solo. dëgg la di dund lislaam li sam santaane nga di ko def li mu tere nga bàyyi ko mhm. di sàngay cëram mhm. li sama oustaz Alioune Sall maa ngi koy nuyu di ko ziar moom Mbacke ak Alioune Mbaye maa ngi leen di nuyu mhm. li muy wax na yaatu te fatt te bañ ne bañ a seere bañ a sollu seere ba pare na yaatu te fatt ñu bañ a wane say cër loolu dégg li saa ma ko santaane comme mu ngay dox ci lool nag wax dëgg yàlla ah. jigéen ju baax la jigéen ju baax la waaw macha allah macha allah euh, waaye xam nga nag euh, euh, am na ñu naan ñu loon wax rawatina sax ñu loon wax naan xale bi du xale TikTok nekkul si internet beeg yooyu léegi ñeen ñi ñi nga xam ne ñooy nekk si TikTok bi xaw see gis seen bopp est-ce que loolu jar na nit yi di si gis seen bopp nii ki bàjjan ji kay am na droit ni sama sama sama doom ji du xale TikTok lu tax nit yi di si di si mer ñu nekk si TikTok bi. waaw mais gis nga waaw. Euh, yenn wax yi sax jar. Euh, dëgg la doo ko topp xamul tax. waaw seetal li baax nga jaar ci rek la bon nga moytu ko. dëgg la waaw comme moom yàlla baax na am tànn mm. nañ ko jëkkër ju baax. Mm. ja moom it tànn jëkkër mi tànn jëkkër ju baax di mbokkam. Mm. de mbokkal bu ma ko la xoolaan wàcc na kaamin. waaw dégg nga di julli di topp lislaam kooku jaru sax ngay déglu yeneen ay détails yooyu da lay tardeel détails yi ay tiit topp ay affaire yooyu yooyu ay wane wala jaru sax xool waaw ah, su ma moom mm. yooyu sax du ma ko déglu di ko seetaan parce yooyu amul njariñ quoi amul njëriñ macha allah jéemal na ci lu baax rek waaw parce que nekk siraatul mustaqiim rek moo am mujj ah leen yi amul mujj waaw macha allah ñu koy ñaanal sëy bu barkeel yàlla barkeel amin amin yàlla na ko ci yàlla jox njabootu lislaam mm-hmm. ko yàlla jox njaboot gu dundal mm-hmm. waaw d' accord rek jërë mm-hmm. ah. bu baax a baax monsieur Baldé moom mi nga xamante ni voilà euh, di papa yi euh, di goro Sadio Mané di nuy Mati Baldé di nuyu Asietu di ah. nuyu toute la famille Baldé ñi nga xamante ni voilà dimanche bi ñu ngi woon kër ga ñu dem fa ñu ñu yaatal ñu di famille bu modeste ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Mm-hmm. toute la famille Balde ñu ngi leen di ziar alors bu ñu jugee foofu nag papa. Ah. nga xam nga nag combat Tidiane fay bi ak Ndandi Fall xam naa du ak sama réalisateur bi com dinañu illustrer photo yi euh, combat bu jur coow la comme ni ñu ko gisee nii. ci ah. écran bi. Ah. Euh, Tidiane Faye ci ni ñu gisee. Tidiane fan ñu bëri nee nañ moo daan. waaye problème bi ci nekk mooy. arbitre bi amul woon possibilité. dem xooli vaar bi. waaw bi ñuy ñëwaatee. Mm. dafa jox euh, dañu bëriwaat. ñu jox Nandi Fall victoire parce que ay ah. avertissement ak yooyu déjà bu VAR bi ñëwoon est-ce que du régler problème bi nga yaakaar waaw baar rek xam nga baar waruñu ci am ko combat bu ndaw ak combat bu mag. baar mhm. baar la rek. Mhm. xam nga fa ñu ko jëlee ci tubaab ya. dëgg la ñoom. Mhm. amuñu équipe bu ndaw amuñu équipe bu mag. dégg nga. amul deuxième division amul dañu équipe baar baar la. bii bii la. dëgg la loolu le litis bu mu mën a doon dañ koy wane mu leer nañ uhuh. yaa ngi dégg uhuh. dugg na wala duggul dañ dem xool uhuh. waaye kii komba bu ndaw la jarul dem baar mais combat bu mag ñu bu baar loolu jar loolu loolu CNG war loolu man su ma doon ñoom du ko def combat lu mu amee daal combat boo xam ne am na ci biir stade am ci biir euh, arène national combat bu fa mën a am rek bu boobaa baar dina ñëw combat yëpp nag combat yëpp. Mm-hmm. moo loolu moo yoon su ko defee coow du am. Mm-hmm. waaye bu fekkee dañ koy tànnal ñi beral ñi. Mm-hmm. loolu tamit coow yooyu du fa jóg de. Euh, justement li ma la li ma la bëgg bëgg laaj mooy parce que comme ni ma ni nga ko waxee sax ñëw nga ci bu dee ñoom mbër yëpp ñoo bokk même licence. licence bi mu bokk même prix bi nga koy daggee. waaw est-ce que gisoo ni injustice la quoi. bu fekkee mbër yu mag yi bu ñuy bëri ñu tegal leen vaar bu dee mbër yu bari du tegal leen waaw parce xam nga institut la mm-hmm. euh, dañu war a yemale ñëpp. mbër mbër la rek. Mm-hmm. parce que bi. Mm-hmm. gis nga ñuy bëri deuxième combat. li ñuy jënd licence moom la kii jënd biir la amul kii cent mille franc ñoom ñoom ñoo bi. assurance bi ñoom ñëpp ci yem. te yamuñu ay cachet loolu dafa war a jóg. dafa am institut ku ne ci biir làmb ji koo xam ne kii. loolu ba dafay war a jóg. te loolu fii ak léegi fi nii indiwuñu ay fédération ak indiwuñu ay ay liggéey ak ay fédération yi mm. te loolu làmb yóbbuwuñu ko ci gàggaam boobu mm. yii du fi dañ mukk ci àdduna mm-hmm. benn groupe ñoo fi nekk rek di lekk ba doyal buñ fi jógee ñeneen ñëw bu mm-hmm. buñ fi ne lekk ba doyal ñeneen ñëw mm-hmm. làmb daal euh, ni ma ko gisee daf ci am benn affaire boo xam ne affaire retraite la boo xam ne bii ku liggéey feneen ba retraité boo ñëwee fexe ba dugg soo duggee toog place yi di mos boo xasee mosit ngay def rek doo di wax. parce que yaakaar nga ne boo waxee jigéen mm. ña nga ceeb ñu ca bokkoon di wax su ñemee wax ñu tey seen gémmiñ. Mm.